waaw suma mbokki réew yi gambia commission bi dorna. na ma ne bi ku ma ci bëmax ma dem namate ñamuta may sara may ndeer li saf mooy réew yi gambia ah ana nit ñi ñi daan buubu fees tepp TRRC commission ana nit ñi ñi daan buubu fees tepp Diané commission génn si leen ci local government commission bi nguur gu ndaw gi liñ nekkee woon ci réew mi base ba manta konko ba janjamburee ba manta konko ba biir kama area council ba dikk ni KMC municipal council génn si leen li tax amu leen ci interest yéen a ko xam yépp leer na fi mu nekk ñu doon wax ne it's a witch hunt it's not a witch hunt leer na réew mi yépp fi nekk ne yépp xaalis yi badoola yi ñoo ëpp ci réew mi nguur gu ndaw gi ñoo jegeñ askan wi ñàkk jël xaalis yi di ko mbalañ pang xaalis bi réew yi Gambia ñaqi jàmbur la bu ko laayewul fii dinañ la teg feneen ne la xaalis yi réew mi xaalis yi nit ñi fan nga ko dugal waaye commission bi doon na léegi commissionnaire yi dugg nañ ka ko jiite dugg si na muy xaale disip si ne looy ajaratu jay na ba baa looya itam dugg nañ jiite ko di suñ jàmbaar ji suñ ponkal mi very brave lawyer one of the best lawyers in the Gambia, in my view, lawyer Patrick Gomez. Njago Joosu Wang. Njago du tooñ waaye seen xeex du jeex te nag réewi Gambia am nañ seede seede bi nekkul seede bu bees mus naa dikk mu da Lamin F Baji. mooy woon deputy director of services ca affaire yu mbalit projet ba nekk ba côté dom side li gën a tax mu dikk tey moom mooy dañ ko laajoon ay ay kayit pour mu indi ko indi na leen tey benn bi mooy rapport yim doon def wig bu nekk ci affaire yu ba côté ci affaire dom side ba Bukhatum 2018 am na tam résolution mooy li council bi KMC d'accordoon ci affaire yi dom side bi ak impress yi ñu leen daan jox xaalis yi ñu leen daan jox ñu téye pour lu ñu war a dépasse ci affaire yi ba côté dom side bi ak xat mu nekk dañ day war a bind rapport bii bu rapport yi xatum 2018 boobu tam dikk na indi na ko ak doom Domsaïd euh, yoon ba boobu tam indi na ko ak ay leetar yu bari yoo xam ne daal dafa am liggéeykat yoo xam ne daal ñu ngi leen doon woon daal am na ci luñ nekkoon ñu la leen déet bàyyi leen li ngeen nekk wala yellow card lañ leen jox next time red card réew yu Gambia la parti Gomes ni mu ko dee def rek sukkandiku ci ka jiite commission ba ha leadership nuyo loy ajaratu dieynaba ba ñu daldi capaxal kayit yi yépp ñu admit ko into evidence way nak ka gite commission bi ne ko amna yu dess de ah gisun ca confirmation of collection khalis bi ngeen daan jël ci nit ñi ñi indi mbalit jël mbalit tuuri mbalit rek nga dégga KMC collection bobu boobu tam bind ko nga indi ko yaa ngi ko bàyyi gannaaw bañ ta jógee nag ah ka jël laajte gi bu njëkk ba li laajte kayit yi mooy ka toppate lawyer Party Gomes muy lawyer Sunkaru Kamara waaye buñ dugalee kayit yi ba pare ponkal ne moom it dafa bugg laajte ponkal ma mooy kan mooy lawyer Patrick Gomes mu ne dal dina seede bi Lamine F Badji mu ne ko ci xatum 2018 du yooyaa woon deputy director of services maanaam yaa toppoon ci ki amee mbalit projet ba ba côté mu ne waaw ñu ne ko kan mooy woon sa boss mu ne ku ñuy wax Lamine S Sagnang kooku mooy woon director of services lawyer Patrick Gomez lead counsel ki jiite lawyer yi dal dina ko ah xam nga ku ñuy wax mustafa Kanye te demone ne dafay defar ñaari bulldozer yi te réewum senegal Grand Dakar ici Colobane Tilel eh, Grand da ngay dem en sa passe avance mom seede bi day Mr Lamine Badji mu ne loolu daal mënu ko fàttaliku ah Bantagawé lawyer Patrick Gomes lead counsel jiite lawyer yi ci commission of inquiry bi di wirifee nguur gu ndaw gi mu ne ko xam nga ko ñuy wax mista Lang Karamo Suware mu ne waaw xam naa ko ñun KMC dañ ko dee jox ay liggéey pour muy fi ñu dee sànni mbalit yi mu jël mbalit yi tuuri mbalit réewi Gambia ñu ne ko waaw yan boot la dee dem jëli mbalit yi mu ne ay bakaw ay Lake Charles jaw dom side bi ak uh, French school ba nekk kaani fii ak yeneen daal mu ne foofu yëpp dafa dee dem mbalit mu fa nekk mu dal di ko buub tuuri mbalit la part Gomes ne ko ndax Mister Lang soirée bii dafa am ay motoom ndax daf dee loué torok pour jël mbalit yi daf ko dee xaya ndax lan mu ne waaw daf dee loué ay torok pour jëlali ñu mbalit mi la part Gomes ne ko waaye nag a ah, ci xatum KMC amon nañ seen togg bopp amoon nañ seen togg bopp lu tax ngeen a jël lan soirée bi ba tey di ko jox contrat te yéen am ngeen seen togg bopp mu ne ah waaw loolu day dëgg la la parti gomes ne gis nañ tamit ci kayit yi amee fii ne ci weerum octobre xatum 2019 yow ci sa bopp yow seede bi lamin F Badji bi na benn leetar di laajte ne Mr Lang Karamo Souare bi contrat bi ñu ko doon jox par benn weer léegi nañ ko wàññi def ko 19 days nañ wàññi benn weer bi def ko fukki fan ak juróom ñeent réewi Gambie lettre boobu nag ñu ngi ko déet of October 2029 lettre bi mu bindoon ñu ngi ko déet fukki fan ak juróom ci weerum octobre xatum 2019 Gomes jël nag lettre ba ak voucher ba voucher ba ñu ngi ko déet 1st of November 2019 ba ñu ngi ko déet benn fan ci weerum ci xatum 2019 mu dal di ko boole volto ba ak leetar ba yëpp jébbal ko ka jiite commission ba xaalis sib moom it looya la su ne looy ajaratu jeyna ba ba pullo réewi Gambia bañ ko jógee nag euh, looya Patrick Gomes ne ko lu taxoon nga binda leetar bi lang soirée waaw waaw dama bindoon lettre bi rek pour affaire yi langue daal ne léegi daal buñ ko joxaati contrat par weer nañ ko emale rek 19 nañ ko emale rek fukki fan ak juróom-ñeent réew yi Gambia lawyer Gomes wax ko ne ci xatum 2019 weerum novembre Lamine S Sagnang mooy boosi séeré bi moom it Lamine la tudda Lamine F Badji waaye boo sam tamit Lamine la tudda Lamine F Sagnang mu ne ko kooku nag ah mooy sa boos de bind na ne nañ extend contrat gi lan def ko ñaar fukki fan twenty days la Patrick James jël boobu tamit jébbal ko ka jiite commission bi moom it looya la xaal leadership si ne looya ajaratu Jaynaba Ba réew yi Gambia waaye lawyer Fadi Gomes ne ko moom seede bi lamen F Badji ñaar ñii daal naka lañ mun a àndee ah yéen yéen a ngi wàññi contrat gi lang karamo soire benn weer di ko def 19 days sa bos di ko def 20 days fan moo fan fan ngeen fittoo mu ne ah man de xam naa ne dama waxoon ne nineteen days dama waxoon ne fukki fan ak juróom-ñeent waaye nag suma boos Lamin et Sagnang moom mu waxee neneen réewi Gambie lawyer Patrick Gomes ne ko gis nañ tamit ne yow seede bi na nga ah di laajte pour looda looda mooy machine boo xam ne dafay clair mbalit yi ñu ne looda bi yaa ngi ko binda pour mu dem Old Joshuang pour teddong site ba fa ñuy tuure mbalit ndax ñu clair fa ci la lawyer Patrick Gomes dal di jox registrar ba nekk ci commission bi ñu gën koo xamee Modou Boy mu wan ko seede bi seede bi seet ko lawyer Patrick Gomes ne ko voucher bi ñu ngi ko déet kañ mu ne ñu ngi ko déet 24 of December 2029 2019 ñu ngi ko dee ñaar fukki fan ak ñeent ci weerum décembre ci xatum 2019 vawta ba lawyer Patrick Gomes dal di ekkati boobu tam dugal ko jox ko ka jiite commission bi moom it lawyer la si ñoom lawyer ajaratu jéene ak yeneen commissionnaire yi yëpp ñu kaaw fa téye kayit gi ko into evidence ëllëg ak sibir commission bi ay kayit rek ñu ngi dugal dugal kayit yi rek xamoon ñan la ñoo gàpp réewi Gambia suñ jógee ci loolu Lawyer Patrick Gomes mu ne ko yéen lu tax ngeen daan louer machine yii pour dompsite yi illegal dompsite yi bi nga xam ne nit ñi waruñ fa sànni mbalit doo leen jël waj maan mu taaw foofu kenn du fa sànni mbalit moo gën ngeen a xayaa ki lang soirée bi di ko fay xaalis bu bari pour lii waaye soo leen jëlee ay wajmaan fi nga xam ne nit ñi dañ fa dee sotti mbalit te waruñ koo sotti wajmaan bi dina leen ko tere moo gën a yomb moo gën a cib ah léegi la parti gomes mu ne looda yi machine yi dañ ko daan xaya pour lang soirée ba pare Lat Soirée ci boppam moom la ñoo jox contrat bi ah moom seede bi day Lamine F Badji mu ne loolu daal daf leen rëcca it's an oversight jotuñ koo gis ah parce que kii xaya lóora bi yeneen ko xayee ci kan Lan Soirée kan ngeen jox contrat bi Lan Soirée réewi Gambia mu ne it was an oversight lawyer Patrick mu ne ko déedéet du benn oversight li système boo leen nekkee woon jikko joo leen nekkee woon la Kanifing Municipal Council KMC lawyer Patrick Gomes dal dina seede bi Mr Lamine F Badji nekk ci xatum 2018 li ngeen doon def yépp mooy Lamine Mr Lang Karamo Suare yena ko jox contract upon contract contract budut bu jinne jox ngeen ko lang soirée bi mu ko ci hatum 2018 ah ana amulon won trox pour gel mbalit mi nga xamne ñu ko sanni fañ ko warut a sanni mu ne waaw trox yi daal benn lañ amoon waaye nag pare gomos na ko ci xatum 2019 amoon ngeen yeneen trok waaye benn tey yoo xam ne KMC ñoo ko moom waaye ba tey yéen a ngi continuer rek di xayaa Mr Lang soirée bi di ko jox contract rek di ko jox contract rek moom muy xaya ay buur doo saak di jël mbalit tuuri mbalit loolu rek la ñoo dégg ak KMC jël mbalit tuuri mbalit nañ ñu wax liggéey bi nañ ñu wax marché yiñ tabax nañ ñu wax robine yiñ tabax ci marché yi nañ ñu wax kantin yiñ tabax nañ ñu wax solar panel yiñ tabax pour waa 19 watts yi nekk KMC am làmp nañ ñu wax jigéen yi rey jaay ci mbedd mi yan marché yan marché lañ leen tabaxal pour ñu am place yi ñuy jaaye gis ngeen jigéen yi ci réew mi niñ sonne amuñ fuñ jaayee ñu ngi daaneel seen place yi amuñ fuñ leen jox million yi yooyu ñuy dégg ci nguur gu ndaw li nga xam ne ñoo jege na jege askan bi jël seen xaalis yi ndar kepp nit ñi di sonn surtout jigéen yi ñu ngi ci réew mi dem leen ci marché yi ngeen gis leen dem leen marché Serekunda dem leen syndicat dem leen Coastal Road dem leen Bur Fot syndicat waxee noppi wanle ñu liggéey bi sonn nañ ci jël mbalit tuuri mbalit waaye ba tey réewi Gambie ñu continuer ak Lamine F Badji la Patrick Gomes dal di jël ay vawto nag benn benn waa pare gomète léegi moom it dafa am mbapp kayit yi mu sekki nag benn benn ñuy ko jox seede bi la Mr Lamine F Badji benn biñ ko jox benn voucher la voucher bi ñu ngi ko date 28 of February 2018 loolu xaalis bu toll ci 90000 dalasis ñu ngi ko fay kan lang soirée pour lan ñu ne pour mu baleel leen Westfield dem be Old Joshua ñu fay ko ci 90000 dalasis la partie commerce génnaaye beneen vawto vawto boobu ah réewi Gambie vawto boobu ñu ngi fay four hundred thousand dalasis pour weer bi kan lañ ko fay ateeti lang soirée beneen vawto bi ñu ngi ko déet twenty fourth of october twenty eighteen beneen vawto bi ñu ngi ko déet ñaar fukki fan ak ñeent ci wérum octobre xatum twenty boobu tam ñu ne pour bale Westfield dem ba Bakoteh Junction ñaata lañ ci fay ñu ngi ci fay one hundred and ten thousand dalasi kañ lañ ko fay ñu ngi ko fayati lang soirée réewi Gambia ñu jox ko beneen voucher voucher bi tam ñu ngi ko date 12 June 2018 ñu ngi ko date fukki fan ak ñaar ci werum June ci xatum xaalis boobu tam mu ngi toll ci four hundred thousand dalasi kañ lañ ko fay ateeti ñu ngi ko fay lang soirée beneen voucher ñu wan ko ko voucher bi ñu ngi ko date 7 of February 2018 voucher boobu ñu ngi ko dee juróom-ñaari fan ci weerum février xatum 2018 loolu pour lan la ñu ne woon pour set setal xaalis bi naka la toll two hundred and twenty five thousand dollars yi kan lañ ko fay ateeti lang soirée mu sax ñu jox ko beneen voucher voucher boobu ñu ngi ko date 15 of December 2018 boobu tam xaalis baa ngi toll ci four hundred thousand dalasi kal nañ ko fay ateeti lang soirée réewi Gambia beneen voucher bi ñu ngi ko date 9th of September 2018 xaalis baa ngi toll ci one hundred and five thousand dalasi kal nañ ko fay lang soirée ateeti réewi Gambia am na beneen xaalis bu toll ci one hundred and ten dalasi boobu tam kan lañ ko fay ateeti lang soirée xaalis yi yëpp ñu ne pour di bale tali yi bale mbedd mi réew yi Gambia léegi Loya Patté Gomes ne ko yéen KMC xaalis yu bari yii yëpp ngeen naan fay benn nit rek lansuwaare lansuwaare lansuwaare mu ne leen woon a seen machine ci xaalis yii di def liggéey bi laa daan ji jox kii contrat lansuwaare lansuwaare lansuwaare lan la KMC am ak Langsuwaare bi lu dox seen diggante wanaan wan tuula réewi Gambie nekkul tri ñu dal di continuer la parti Gomes dal di na seede bi la Lamine F Badji ne ko ci xatum 2019 KMC amoon nañ ay troc waaye ngeen continuer rek di jox lang karamo soirée di ko jox rek ay contrat waro ngeen a terminer contrat bi jeex digam legi am ngeen seen troc yu jël mbalit touri mbalit réewi gambi bam ko defé nak mom seede bi mbiri tang lamen f badji mom seede bi door di yuhu Kaji te commission bi momit it la sinu ni ajaratu jéene baba muné ko mr badji do ci commission bi di yuhu bi nga ñëwee ees yaa ngi yaru waaye bi xa affaire xaalis bi jógee rek nga door di yuuxu fii ci commission bi maa ngi laa aide nag fii duñ fi nangu yuuxu ma ne ah commission bi day ñoom ñoo war a seet exemple du seede yi yëpp de waaye alay li soo leen ko seetloo réewi Gambia alay jiit li ñeena ci seede yi jógee KMC lii la ñoom mbuboo ñëw ak reewaande dañ ko mbuboo pour muur lan mursen seen labaj muur seen ndar kepp muur seen luubal man mi jóge sabax sànjaal moom la wax mbalañ fanga seetlu leen ko rek bari dikk nañ waaye seetlu leen KMC rek du ñëpp de yéen a ci seede yi lii lañ dee mbubooy ñëw di jaay rewaange di jaay xamadi loolu pour nuba seen jëf allegedly moo tax daal commission bi ñoo war a teg seen tànka ekat teg seen tànka ne doy na pour sante ci mi laa am set an exemple lu ko moy baax na waaye ñu continuer réwi Gambie ba tey de lawyer Patrick Gomes lead counsel lu mat daf koy daggaw mun a seede bi Lamine F Badji ci xatum ci eh, weerum décembre xatum 2019 ah amoon ngeen loda ak ay trox yeneen ko xayoon pour au euh, josuwang downside ba fa ñu sànnee mbalit mu ne waaw ñu ko xayoon ñetti yoon ñaata ngeen ci fay mu ne 155000 hundred thousand kan lañ ko fay atéti lang soirée the réew bi Gambie Léopold Gomes ne ko Lamin F Badi, direct deputy director of services fooguloo wanne KMC xaalis yu bari yii yëpp ngeen di bi ah fooguloo wanne ne sax ngeen jël wajmaan fi nga xam ne nit waruñ mbalit wañ maan ba taxaw fa nga xam ne nit ñi duñ fa sànni mbalit ñun tam nañ réewi Gambia nañ ca soppi suñ jukko suñu tegalee bin bin baan sile bin sile pour sànni mbalit nga dem ci fu ñoo sànni mbalit mi nga sànni ko fa waaye danga ko faa romb rek sànni ci mbedd mi wala wàccee sa moto wàccee weer yi rek sànni kaani kóog bi nañ leen wetti suñ jikko ñu am discipline ndax réew mi seet waaye fi mu nekk foofu la mbalit foofu la mbalit foofu la mbalit ak nawet bi te xam ngeen ne mbalit àndut ak nawet weñ yi dañoo nekk di gën a biiw suñ biiwee ca mbalit ma ba pare dem ca marché ba di biiw ci suñ jaxatu yi te jaxatu dina meññ te boorom yëgul réew yi Gambia ah mom seede bi day waaw mu ne loolu daal it makes sense ngi gënoon daal ñu jël ay security ñu taxaw foofu nga xam ne nit ñi fañ waru ta mbalit ñu sànni fa mbalit waaye area council si nga xam ne tamit amuñ fu nit ñi def seen mbalit nañ utal nit ñi fu ñoo sànni seen mbalit parce que suñ ko amut dañ ko sànni fi leen neex surtout tobaski ba ñu ren xar ya bu la nang ko baal soo rendee sa xar xar bi amuloo foo ko sànni da nga ko sànni fi la neex muy fàttali néeg yi la ndox mi du dem muy indi flot yi la ci marché yeeg hôpital yeeg yooyu kon nag nguur gu ndaw gi nañ ut dos bins pour nit ñi sànni mbali nit ñi tam su leen ko tegalee de leen ko faa cabaxal réew yi Gambia legi loya Patrick Gomes nekko nak ne ñew ci affaire yi drainage cleaning mo la leen wax ni drainage yi la nga xamne ne dafa fata xam nga ndox su amul fu dem mu na dagg sax talibi bi indi flooding yi le gis ngeen ko bir kama marché ba flood hôpital ba health center ba flood because drainage ba dafa telim legi mu ne ko bu ke MC tam. celaa la même chose képp ci itam naka ngeen décliné seen dirine yi moom seede bi day Lamine F Badji mu ne xat mu nekk balaa taw bi di dikk dañuy wër seet dirine ji yëpp yi nga xam ne dañ tilim ñu dal di ko setal ndax su ñëwee ndox mi am fum aw réew yi Gambia lawyer Patrick Gomes lead counsel jiital lawyer yi mu ne seede bi Lamine F Badji léegi lang karamoo soirée bi contrat yi ngeen ko doon jox yëpp ndax am nga certificate of completion loolu mooy réewi Gambie soo joxee nit liggéey mu liggéey ko ba pare da ko war a jox kayit kayit goo xam ne wane na na liggéey bi nga ko joxoon pare na ñu ne ko léegi bindal loolu soo delloo QMC nga utal ñu certificate of completion li ngeen daan jox lan soirée bi pour liggéey yi yëpp parce que liggéey bu mu pare war ngeen ko jox kayit lu ñoo wax certificate of completion kayit gu wane ne ah liggéey biñ ko joxoon pour mu setal drainage bi def na ko mu ne ko bindal nga indil ñu ko léegi lawyer Patrick Gomes ne ko ah ba ci xatum 2020 yéen a doon luye ay torog rek te time bobu am ngeen troc KMC moom seede bi ne ah déet benn ah, troc la lañ amoon ci xatum 2020 réewi Gambie la parti Gomes laaj seede bi ne ko xam nga ndax xam nga ku ñoo wax Balong baji, mu ne ko waa Balong baji, mooy suma boss tamit mooy suma manager pour affaire yi daal pour ñu clean Talinding South dom side ba fañ mbalit ma nekka ñu ut ku ko clean réewi Gambia kan moo ko clean lan soirée ati ñaata lañ ko fay one hundred and forty thousand réewi Gambia moo tax looya Patrick Gomes jël voucher boobu buñ fayati Lamin euh, lan soirée one hundred and forty thousand voucher ba ñu ngi ko date twenty first of January twenty twenty two voucher ba ñu ko date ñaar fukki fan ak benn ci weerum januari xatum 2022 ñu dal di ko jël la Patrick Gomes ni mu dee def sukkandeku ci ka jiite commission ba moom it looya si senior lawyer Ajaratu Dieynaba Bah ak yeneen commissionnaire yi yëpp ñu dal di ko fa téye pour kayit yow yooyu nekk seede pour ëllëg si biir xaj na yeneen seede ñëw ñu sekki ko bécci leen ko réew yi Gambie bañ ca jógee lawyer Patrick Gomes ne ko ma laajaat la lu tax KMC mënu leen a jëndal looda yi lee wala bulldozer yi lee wala yi lee jël mbalit yile lee ah moo gën ngeen di fay xaalis yu bari yi yépp public funds xaalis yi waa KMC doo leen jënd machine yi yéen ci seen bopp waaye every time rek ngeen luye every time rek ngeen haya lansuwaare lansuwaare lansuwaare lansuwaare réew yi Gambie bañ ca tolloo nag Kaji kom komsogo mu lawyer ya ajaratu jeyna ba ha leadership mu daldi ewi seede bi la lamin f badge. ne ko binda nga kayit yi na wax na nga indi legi dinañ la samonat nga dikat so indi kayit yoyu ñu gën la tee laaj bañ tolo fofu nak ca ewi seede bi lamin f badge. ah rewi gambie defe naa commission bi xam nañ li ñoo def de am nañ stratégie bañ ewee Lamine F Badji mu am seede bu bees bu dikk xam ngeen seede boobu kan la mooy lamin Karamo Souare kañ daa jox contrat mu dikk mu dal di waat ci alquran bi dal di toog ah maa ko naa ko wax dëgg yàlla ñu laaj mu ne moom petit contracteur la ci affaire yi Dockside cleaning ñu ne ko foo dëkk mu ne mu ngi dëkk euh, Old Joshua ñu ne ko lan mooy sa liggéey mu ne ah bu njëkka dama daan def business yi maalo waaye ñu bari dama leen lewal maalo mi feyuñ ma bor ba suma business bi collapse ñu bari dañ ma leb maalo waaye feyuñ ma maalo mi business bi collapse fee leen ko maaloo waay réewi Gambia mu ne ba ma jógee ci loolu nag ah ci la ma KMC dee jox euh, contrat gi la pour affaire yi jël mbalit tuuri mbalit léegi ñu laaj ko sa jànga fu mu em moom lan karamo soirée mu ne déet man jànguma ñu ne ko waaye suñ na wanee sa statement bi bi ñu dal di rëddal di nga xàmmee sa signature mu ne waaw ñu wan ko ko mu ne waaw lii maa ko sayn ca la looya Patrick Gomes jël nag cabaxal ko jaarale ko ci ka jiite commission bo ci Pasin ba muy senior lawyer Ajaratu na Ba ak yeneen commissionnaire yi yëpp ñu admit ko into evidence lawyer Patrick Gomes dal dina seede bi dikk ees muy Lankaramo Souare mooy kañ daan jox jël mbalit tuuri mbalit contrat yooyu ak koppar yu bari yooyu réew yi gambi mu ne ko ci xatum 2018 fi municipal council jox nañ la contrat yu bari moom seede bi day Mr Lang Soare mu ne loolu dëgg la jox nañ ma contrat yu bari pour may dem digi clean dom side di nga xam ne KMC ñu ngi ko amee comme Bakaw ca stadium ba am nañ fa benn ol josuwan ca boori kaso prisin am nañ fa benn sankun sill am nañ fa benn ol josuwan ca bàmmeel ya am nañ fa benn ña fa tëdd yal na leen yàlla xare àjjana am na beneen tamit bàkkoote ak yeneen mu ne ah dama daan luyee nag ay trop ñu taxaw fa ku ñëw sànni ci ku ñëw sànni ci su yi feesee tam ñu jël mbari di tuuri balik, réew la pare gome kon dafa am ñuy liggéey ci Sharon mu ne déedéet dama dee luyee ay nit rek su troog bi feesee ma luyee kenn rek mu yóbbu jël mbalit mi tuuri mbalit réewi Gambie ñu dal di continuer ak bi Mr Lang Karamo Suare mu ne waaw la pare gome ne ko ndax sa business bi register nga ko ak GPPA ni ko liwaa bi waxee mu ne waaw register naa ko ñu ne ko kañ mu ne ah loolu yàgg na de mënuma fàttaliku nag kañ la woon waaye register naa suma business bi Lang Karamo Soirée and Sons réewi Gambie lawyer Patrick Gomes na ko ci diggante xatum 2018 dem ba xatum 2023 KMC contrat gi leen nga jox bari na te dañ cay utee yene ay affaire yi peinture yene ay affaire yi loda machine yi la yene ay ñu wala nga bale mbedd yene ñu wala nga indi ay building materials yépp yépp réewi gambie soko ko mom Mom lang karamo soare mi contrat gi ko jox rek ci walum xaliss egg na millions 608000 dalasi contrat yi ko KMC jox yëpp ci xaalis soo ko xayma yëpp mut na 13 millions 808000 dalasi mut na fukk ak ñetti millions ak lu topp réew yi Gambie comme ni nga ko waxee mu ne moom amul ñu ko liggéeyal daf dee xaya ay nit rek su torog bi feesee rek mu jël benn nit mu defal ko liggéey bi mu fay ko la pat de goros ne ko aha léegi yow da nga am sa machine ni bopp ndax lan mu ne déedéet man awma benn machine li am rek mooy ñi ma dee luye ñu tuuri mbalit mi ak invoice yi ma dee jox KMC ñu fay ma waaye machine yi ma am man momu mako ko dama ko dee luye Pade Gomes ne ko waaw ndax waxoon nga KMC ne amuloo machine dang dee loué machine ah moom seere bi day lang karamo soirée mu ne wax kan KMC déedéet su ma leen waxoon ne amoo machine dama ko de loué kon KMC duñ ma jox contrat fay day jaay Dakar parce que ni mu di soo amul fayda kenn du ko jënd mune man waa KMC suma len leen waxoon ne aw ma machine kon duñ ma jox contrat motax man nag waxuma len ci dara nak lo pat de gros dal di ko laaj ne ko yow ban experience nga am ci affaire yi mbalit contrat gi la ah mune man day suma ki ma jur sama bay contract la won li la don tafit manam dal dama ko donn bañ xeggee ci nak pun ah, mu jot nak pour ñu dem julli waxtu calaka jiite commission bi wax nañu ñu dëpp ba xañ ba dikk réew yi